ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen ay suivre chaîne bii di xalaat tv ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag suñu taxaw seetlu dañ koy jagleel kii di Bocar Samba Dieye ñun sénégalais yi Bocar Samba Dieye li ñu gën a xam mais turam dëgg-dëgg mooy Bocar Samba Diéw muy ab modèle ci wàllum jaar-jaar parce que bokk na ci sénégalais yoo xamante ni ils sont partis de rien maanaam bi ñuy door amuñu dara ba fi ñu yegg si tey motax tay ñu def sep taxaw seetlu pour que ñi nga xamni ne ñoo ñuy suivre mën ci inspiré wu amaat yaakar ci réew mi parce que comme niñ koy waxee sa su nek réew mi du lu bon rek mo fi ne. amna des hommes et des femmes de valeur yo xamanteni ndaw ñi mën nañ inspiré wu ci ñom ñuy ay doomi adam yu musta jaay seen gor pour tekki deful lenn lo xamanteni mën nañ leen ko xébé pour doon milliardaire Bocar Samba Dièye nag ci yoyé sénégalais. ci vidéo bi dañ leen di montrer d'abord naka la def moom bokkat Samba Dièye jugee ci métier manébar doon fayee ko chaque weer 17000 francs ba doon opérateur économique nekk tey benn ci milliardaire yi nga xamante ni xam nañ leen ci biir réew mi. dañu aussi aborder problème bi nga xamanteni amna am na banque de la place muy CBAO bañu saisir li nga xamni moy alalam ay kërëm yo xamanteni valeur bi tolo na ci 11 milliards ñu tek ci loxo mu nar ko ñak ci complot gi nga xamanteni ay domi réewam ñoko ko def ci porte portaaralu suñuy nguur lolu lepp dañ ko leral ci biir vidéo bi ba ngeen xam naka lañ ko tegee dil moom Bocar Samba Dièye dil boo xamante nii cité woon nañ ci kenn ki fi nekkoon jëriñ gu njëkk mu ci société de manutention boobu noonu mais jamono jooju dañ doon maye ay table marché Sandaga pour ñi nga xam ni dañu bëgg a jaay moom Bocar Samba Dièye ak benn xaritam bokkoon benn table ñu doon jaay ay yérek yu ñu mel bu ñu amee bénéfice séddoo moom Bocar Samba Dièye di liggéey di denc ba am 350 000 francs ba mu dajalee loolu nag mu décidé ñibbi dëkkam investir ko ci tool yi mu nekk fa di bay ba atum 1959 am benn xaritam bu ko proposé benn place Grand Dakar pour mu fay jaay lépp lu jëm ci wàllum lekk muy ceeb dugub soble ñebeeg yu ni mel muy liggéey di dajale ba atum 1964 mu jënd benn kër ak 400000 mu jël kër gi di ko loué parce que kër googu noonu defoon na lu toll ci vingt 22 chambres maanaam ñaar fukki néeg ak ñaar chaque weer mu daan ci am lu toll ci 30 000 francs sans compter li nga xamante ni moom lay gagné ci wàllum commerce am. Bocar Samba jey commencé nak dugg ci walum business deug parce que gannaaw bu mu jëndee kërëm bi quelques temps après daf ko jaayat 1 million 450000 d'ailleurs avant sax muy ragné ko ci walum importation wu ceeb ci walum immobilier lo commencé business parce que dafa amone habitude di jënd ay kër yo xamanteni prix bu moins cher la ko dan amé défarat ko diko jaayat lolu apporter ko lu bari bari mu tambalé nak nek un véritable businessman ci 1985 Abdou Diouf bi fi nekkoon njiitam réew ne Sénégal dafa soxla li nga xam ne mooy dugub lu waay mën ci importer ko rek doyul ñu libéraliser li nga xam ne mooy secteur boobu noonu Bocar mbir mi intéressé ko mais xamu ci woon lu bari parce que benn xamul woon secteur boobu ni muy doxee waaye itam miinul woon yoon wi ak procédure yi nga xamante ni fa nga war a jaar pour importer ay produits biir Sénégal ci noonee mu dem ambassade Égypte pour demander ay informations ambassadeur bi mettre ko en relation ak benn chargé d'affaires kookee dimbali ko ba mu importe dugub Sénégal jëlee ko Argentine business boobu tamit dox ba après gars yu soxlawaat li nga xam ne mooy mboq mu importé bato pour jaayaat doon fournir ñu bari mais période boobu noonu am na société bi mu doon liggéeyal société boobu noonu bëggoon ko nax puisque moom jàngul mënul liir gars yi bëggoon ko fayloo ba mu indi mboq mi su ko defee ñoom ñu jël ko société boobu noonu jaay mboq mi mais liko ci génnee mom Bokar Samba djey moy bi mu décidé won importer mbokh bobu dafa defon lu ñu assurance tout risque ak ben assureur de la place mu top gaay ci yoon pendant juróomi at mu top ci dossier bi ba mu gagné ko bi mu ko gagné nak gaay ko lu toll ci 100 millions de francs CFA jamono jooju 100 millions ay milliards suñu jamono ji Bokar Samba djey business am commencé dox parce que da dan importer bala sax marchandise bi di génn port fournisseur yëpp jëndu ko ba mu jeex premier bateautier bi nga xamni ne indi Sénégal valeur mi ngi tolloon ci 800 millions de francs CFA presque un milliard chaque importation mu daan def ay bénéfice centaines de millions noné le continuer ba doon milliardaire parce que il faisait partie ci importateur yi nga xamni ñu ëpp doolé ci bi réew mi. parce que amna quota bu reuy bo xamanteni ni doon permettre muy importer ay tonne yu bari surtout nak ci benn produit bo xamanteni bokku na ci produit yi gëna consommer ci biir Sénégal muy walum ceeb donc lolu permettre ko muy développer ay business am di importer lu bari waaye tam di am ay bénéfices. en 1998 Abdoul Mbaye mi fi nekkoon premier ministre de créer ben banque muy wër nak ay borom alal yo xamanteni ci biir réew mi dañu mëna participer ci création bobé banque. Bokar Samba Dièye bokon ci homme d'affaires yi nga xamanteni mom moom Abdoul Mbaye def len ciblé woon manam ñi nga xamni japp na ni am nañ doole pour ñëw bok ci création banque bobé Abdoul Mbaye expliquer projet bi Bokar Samba jey ba mu nangu ci fatali jamono joju abdul mbay amul won xaalis bo xamanteni do nako permettre mu def étude de faisabilité bi manam boy créer ben projet mo xam entreprise wala lenen lu mënti don ci ben secteur bo xamanteni concurrence bi dafa métti trop rawatina secteur bancaire bi il faut que nga def ay étude xol ba xam secteur bi mi ngi dox fu mu tollu ñan ñoo mëna nek say concurrent bu ko defee yow nga mëna xol ban stratégie nga bëgg mettre en place mais pour def étude bobu noonu abdul mbay amul won Bocar Samba Dièye moo ko defal chèque gu 10 millions pour que mu def étude boobu Abdoul mbay jël xaalis bi def li nga xam ne mooy étude bi pare jëbal ko Bocar Samba Dièye Bocar Samba Dièye comme que moom jàngul dafa faral di liggéey ak ay experts yoo xamante nii saa yu amee yenn dossiers yi ñooñu ñoo koy jàngal Bocar Samba Dièye jël étude bi jébal ko ku ñuy wooyee Mamadou Touré Mamadou Touré nekkoon na fi ministre des finance waaye itam jot na liggéey fii di FMI Mamadou ture xamal Bocar Samba Dièye ni am na yenn pàcc yoo xamante ni leerul maanaam dañ ko war a rectifier Bocar Samba Dièye jël dossier bi jébbalaat ko Abdoul mbay ñu soppi point yi nga xamante ni leerul après nag ñu war a créer banque bi nga xamante ni ñu ngi ko war a dippee Alif Banque mais quelque temps après Bocar Samba Dièye dégg ni ndem si yàlla si Aliou Sow bu CSA dafa jënd banque bii di BST muy banque sénégalo-tunisienne bi nga xamante ni dafa nekkoon en faillite ba ñu waroon ko tëj moom Bocar Samba Dièye dégg ni Aliou Sow boobu noonu jënd na banque bi ba def Abdoul mbay directeur général. gannaaw nag ba mu jokkee ak moom Abdoul Mbaye ne ko waaw waxtu bu dajee gëstu la dañu bëggoon créer banque léegi gis nañ ab banque boo xamante ni existé na déjà. mais dañ ciy investir pour que mu suqalikuwaat léegi li ñuy def mooy yow bogar Samba Dièye da ngay nekk actionnaire ci banque bii di BST maanaam nga bokk ci ñi ko moom parce que xaalisam déjà dugg na Bocar Samba Dièye ne waaw nangu na ci noonee mu am ci lu toll ci 3000 actions banque bii di BST di avancé di suqalikuwaat ba Bocar Samba Dièye am ci lu toll ci 13049 actions maanaam bokk ci actionnaire majoritaire yi moom ak aline Sow ak kii di Abdoul Mbaye en 2006 le groupe bancaire marocain Bidi, di Bank, Wafa Bank décidé la banque Bidi BST bi Bocar Samba Dièye ak Abdoul Mbaye ak kii di Sow organiser réunion pour formaliser njaayu banque boobu mais à sa grande surprise Bokar Samba qui nous convoqué wu ko woon ci réunion alors que moom actionnaire la ci biir banque Bidi BST ont ñu war ko jaay groupe marocain léegi nag Bocar Samba lettre pour contester décision boobu Nous ñu mujj convoqué une réunion ci bésu réunion bi nag moom Bocar Samba Dièye interpellé PCA marocain bi nga xam ne moo fa nekkoon ci lan moo tax moom convoqué wuñ ko waa ji na ko léegi dañuy fixer rendez-vous suba incha allah mais li mat a ci mbir boobu nooy période boobu noonu maanaam jamono gi ñuy jaay banque bii di BST groupe marocain bii di Attijari Wafa Bank instant bi ñuy formaliser vente bi Abdoul mbay moom déjà jot na chèque bu toll ci 4 milliards Alioune Sow bi nga xamante ni moom moo racheté woon banque bii di BST moom jot na 10 milliards Bocar Samba Dièye moom moo toppoon ci mbir mi di daw. léegi nag Bocar Samba Dièye bi mu dellusee pour wuyu rendez-vous bi ko PCA marocain bi joxoon entre-temps banque bii di BST changé na tur tudd CBAO Bocar Samba Dièye téere li nga xam ne waxoon na ko doon ko kaas maanaam ñàkk convocation bi ñu ko ñàkk convoqué woon alors que moom actionnaire la woon ci biir banque bii di BST te ñu jaay ko ab groupe marocain gars yi xam ne li ñu def teguñu ko fenn banque bi proposé ko ñaata action la bëgg ci boobee banque maanaam CBAO Bocar Samba Dièye bañ parce que day bañ li ko doloon dalaat ko foofee nag la gars yi ne paa bi faw ñu sàkkal ko pexe parce que fi ñu nara a mujj ak moom du neex. banque bi na ko nag léegi il faut que nga fay boru 4 milliards 802 millions 562 francs yi nga xam ni leboon nga ko ci banque bi di BST bi nga xam ni moom la créé woon ak Abdoul Mbaye Bocar Samba Dièye nangu fay leen seen xaalis banque bi defal ko papier bi wane ni remboursé na xaalis bi yëpp te tegg nañ seen loxo kër yi nga xamante ni moom Bocar Samba Dièye defoon na ko ko garantie maanaam wàccoon ak ñoom gannaaw ba mu fayee ba noppi ndekete banque bi maanaam CBAO débité na ci comptam lu toll ci cinq milliards six cent cinquante millions de francs CFA ci loo xamante ni jaarul yoon ñu ngi ci atu 2008. banque bi ne Bocar Samba Dièye yow sax legui yoroon nga ñu lu toll ci 7 milliards 166 millions 240 423 francs 7 milliards yo xamanteni ba legui CBAO mënul génnee papier yi firndel ni mom Bokar Samba Dièye moo def prêt bi woné itam signature yi nga xamni mom def parce que pas bi mom rek daawul signé non seulement amna ay experts yo xamanteni ñoko ñoo conseil. doon conseillé waaye itam dafa amone habitude di signé ak au minimum ñetti personnes yo xamanteni mom ak ñom ñoy ànd

yan wut loolu la expert wax. porte leen plainte yóbbu leen ci yoon mais biñ leen wooyee ci yoon lan la naar bi def maanaam propriétaire banque bi di CBAO patron bi dafa porté malade ne dafa feebar. jour bi njëkkee woo tubaab yi naar yi ñu leen kaay leen wuyu pénal rax def porte plainte ñu ne def feebar juge bi doon at mu ne il faut. mu indi certificat de médical waneen def feebar ñu defaral ko fa euh, kayit waneen def feebar mu daw dem Maroc loolu moo li jàll affaire bi mu amee mbokk ñu ne nit ku ñuul amul mbokk ku gis intérêt rek dem te loolu lépp liñ ci jublu woon mooy nar seeni plan préparé li nga xam ni ñu ngi koy def jëmale ci paa bi parce que jàpp nañ ni jàngul ñu bëgg a teg diil ci kawam. Bocar Samba Dièye amee leen ñaar dërëm ñom sax au contraire ñom ñoo amel bokkar Samba jey xaliss waye bëgg tour tuur bëgg a njuuj ñak gëm yalla tax ñu bëgg a jël xaalisam parce que ñoo jappon ni jangul te xamuñu ni jang du français rek yew mo gën jang bo jangé té amul benn njëriñ té mom jang na alcorane bi yeewu na min na commerce bi donc kenn mënu ko ci ndax comme bok mbiru yu melni ñun mënuñu koo seetaan parce que askan bi lañ fi neewal justice li muy wax di ko rendre da koy rendre au nom du peuple la ñu wax askan bi moo tax muy wax comme askan bee tax muy wax nag ñun danañ dallu ci askan bi wax ak ñoom xamal leen ni mbir mi mbirum sàcc la mbirum dóor la comme yëpp li ñuy dund ñoom chaque jour ci banque yi seen xol di ci bon mu nekk engagement boo xam ne tey war nañ koo mën am ci question bi pour mën régler définitivement. té li woné ni c'est faux amul Bocar Samba Dièye mësul leb 7 milliards CBAO banque bi dafa né pa bi daf leen lepp xaalis bobu noonu en 2008 pour fay benn commande bu tollu ci 17650 tonnes ceeb yo xamanteni mi ngi won port bu Dakar. alors que même période bobu noonu manam en 2008 ci port bu Dakar fukki bato ak ñent yu yebon ceeb Bocar Samba Dièye commandé won nako té lepp daf ko fayoon valeur bi tollu ci 52 milliards de francs CFA. xam ngeen ni ku fay 52 milliards de francs CFA ay bateau ba ñu dem seen yoon yow do dem ci banque di leb 7 milliards kon banque bi limu wax dara amu ci te comme niñ ko waxee sank ba léegi ni avocat Bocar Samba Dièye sakku nañ ci CBAO mu woné papier original yi woné ni bor amna. manam fi nga xamni ni Samba Dièye moko signé ne man leb na ba léegi banque bi lank nañ ni du ko génnee maanaam ñoom amuñu benn preuve te ba léegi lenn rek la Bocar Samba Dièye soxla mom lenn rek lay sakku moy nañ ko confronter nañ ko responsable banque yi wut témoin koo xamante nii xam-xamam màcc na ci wàllum banque pour que mu wan leen ni lépp luñ ko waxal amul parce que moom am na bépp papier bi war mais ba léegi yoonu Sénégal tranché wul ci mbir mi góor gi moom bëggul nguur gi faral ko moom nee na soxlawul ku ko teel tànk li mu bëgg mooy na yoon def liggéeyam àtte ci dëgg te wéeru ci ay preuves yi nga xamante ni moom am na ko moom loolu kese la soxla. bi ma la waxee 1957 la commencé boo xam bu mu bu mu duggee ci affaire bu rëy pour importateur. xam nga commerçant du koy fragile defa defa dafa gaaw ñett siwaa nga sàcc douane walla nga sàcc impôt loolu boo xar mosu ko am xëy na lii ko dal nii mag na juddoom te xëy na bu duggul woon ci liggéey bi amaana du ko dal mais nag comme dal na ko ci kaw ñu tooñ ko te li may wax mu leer ma ne dañ ko tooñ parce que xam naa lu bari ci moom ndax jub rek laa xam ci moom waaw nit ku jub nag soo ko fekkee ci kaw njugam njubam turne ko beneen boor yaa ko tooñ dañ ko tooñ tooñ googu ñu ko tooñ nag a ah, mu teg yàlla ci kanamam ak ngëm-ngëmam tey ñaan nag tamit ñun tamit njabootam ñuy ñaan ñu dimbali ko ci kaw tooñ gi ñu ko tooñ ba pare ñu dimbali ko nag waaw. léegi nag ñun li ñu ci mbir mi mooy ab gor. benn sénégalais nit koo xamante ni dundam gépp ba muy nekk tout tànk daf ko xeex ba am li mu am tey ñu nar loxo ci alalam parce que jamono gi ñuy wax ak yéen banque bii di CBAO mi ngi teg loxo ci ay këru bokkat Samba Dièye yoo xamante ni valeur mi ngi toll ci 11 milliards de francs CFA. moo tax ñuy leeral sénégalais yi ñu xam dëgg bi fan la féetee li doomi aadama yi war a comprendre mooy bokkat Samba Dièye ay mbokki sénégalais ñoo ko suuxlu truandé ko dugal ko ci guuto boo xamante ni am ci ay problème pare nag seetaan ko. ñeneen itam jugee bitim réew doggali ko suñu nguur toog di seetaan ndax lan dañu ragal buuru Maroc pour ñoom justice bu Sénégal bu jëlee ab ndogal boo xamante ni arrangé wul banque marocaine suñu coopération ak seen dëkk dafay nax saay ñaaw na pour suñu réew te itam néewul lii mooy encouragé ay doomi sénégalais yi nga xamanteni nii bëgg nañ investir ci réew mi parce que malheureusement au Sénégal say morimi sénégalais ñoo lay tëral rend la te c'est dommage pour suñu réew peut-être dañu ñëwaat ci sujet bi ak ay yeneen léral bu dossier bi avancé donc jàngat bi tey loolu woon pour léral sénégalais yi nga xam ne ñi ngi dégg Bocar Samba Dièye xamuñu mooy kan di dégg itam dossier bi nga xam ni am na ko ak CBAO ak ki fi nekkoon ministre muy Abdoul Mbaye ñu def cab taxaw seetlu pour léral leen mbir bi naka la fa tëdd exactement amaana daañ ci ñëwaat jëmi jamono ak ay yeneen leeral leen gërëm di leen jaajëfal di leen di ndaje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf